ayca ñu doon toolam ak seen mbër nu ko gisee nu xool amateur yi ana waa kër Modou Lo yi waaw kay ana waa kër Modou Lo yi waaw mais yéen nu ngeen toogee. ñoon am ndam bu soobee yàlla. combat bu passé Pikine loo lay bu soobee yàlla. Pikine loo lay lu leer laa la wax. Modou kese ñoo mën ñoo ëpp doole. billaay wala ñoo mën ñoo ëpp doole. billaay yow lu leer la wax. bu dee bëre ñoo ko mën bu dee xeex ñoo ko lamb ji fecc rek lañ si amoon te pare nañ si ñoom. Pikine dañuy xaar. Pikine ñoo ko daan. Pikine dañuy xaar ci dàq bëri Pikine ñoo ko bëriloo ba mu bàyyi ñu daan ñu ñëwaat ñu jàpp ko dóor ko mu daan ñoo mën ñoo ëpp doole lu leer laa la dem ca kaw Modou Kese. ca kaw. waa mais yéen da ngeen da ngeen di teg lu xew xanaa da ngeen ragal. dañ leen di bàyyi ak show bi parce que lii nañ am si lamb ji ñoom. Modou ku ko gis ko xam gis ko xam ne mënul yii nii nii nii affaire yi nii waaye bañ dugg si làmb ji dana xam ne lépp dëgg la bu yàgg yow xool Modou xam ne xel dal la xoolal compétence Modou physiquement xoolal Modou ñu loolu rek la ngay lii mais bi ay mystique yi yëpp la làmb luy dugg fii nii nii si du ay mystique de mën a dóor mën a xeex mën a bëre yaa ma ñu xool jigéen ñi ñu xool jigéen ñi misaan

ko nu mu gisee lamb ji. ah we speak English wala wolof English. what is your opinion of the of the spectacle. this is amazing it's our first time to come here to watch this fight so for us to come here is a big amazing we never know that Senegal they have this culture we can express our happiness to be here. you like the culture. I love it I love it I want to buy a house here. and stay here. I love it. I'm originally from Gambia, but it's my first time to come to this kind of event with my girlfriend. We are so happy to be here. Thank you. Welcome. My boyfriend is also wrestler. He had a fight a few days ago in Gambia. Yes, so we are, uh, we are. Thank you so much. Thank you. Thank you. ñun supporter Modou Lo lañu may wax benn baat rek ñun dañoo bëgg Modou Lo ba jeex tàgg gannaaw yàlla ñun suñuy rey suñu bopp wala ñuy dégg bëgg Modou Lo ak yéene ko ndam moo tax mais lamb dafa am loo xam ne ñun dañ koo bëgg dafa baax ñun mbër da ngay sotti koo gàllaaj di tekkee ay gàllaaj pare bopp ñëpp xam nga ndax loolu lañ xamoon ñun si Modou Lo mu xajam mais Modou Lo mi dafa sere mais nag terewul nag ñun am nañ gëm-gëm ba léegi yàlla ñu yàlla may ndam loolu la ñuy ñaan am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla daf ñoo màggee franchement mais nag yàlla ñu yàlla waaw ñu jël ñaar ñi. non ça ça va. si jàmm bu man maa ngi tudd Pablo avant avant tout maa ngi gërëm waa Ngaye Mexe. man Ngaye Mexe laa am Ngaye Mexe laa dëkk. damay gërëm waa Ngaye macha allah waaw. ah. lamb man de un li ma gis mais sëriñu internet yi dañoo bari torop quoi. barki borom Touba lu leen neex la ñuy wax di monter ay vidéo xëy di ko génnewaat dafa bari si dëkk bi barki borom Touba. te nit ñi dañoo xam ni mut barki borom Touba. mais Modou noo gis ci moom tey. ah noo gis ci tey. non incha allah li ñu war a indi indi nañ ko incha allah li ci kanam rawul ay bët incha allah man Pablo borom ngaay ma wax loolu incha allah rabi. man maa ngi tudd Noreyni bu xarañ loo waaw ñun waaj nañ comme ni daan waaje ñun yàlla def yàlla def na bés yàlla def na ñun bés bu mag jaaxaltuñ ci làmb mu xam Modou Lo xam ne yàgg na bëre bés yu mag xam nga. entraîné nañ def nañ li waroon def ànd nañ suñu mbokk xam nga def nañ lépp li ñu waroon def day ñaan yàlla incha allah Modou yàlla may ko tal ak fekkee dugg ci géew gi incha allah yàgg nañoo pare Ama Baldé tey lu mu def day daal yéen a ngi def liggéey bu rafet Ama Baldé bu dawee sax tey ndeysaan jërëjëf Malal. man maa xam nga